as beaucoup parlé s'il te Malal effectivement waxul lu bëri. demande la parole bu ñu xóotalee bu ñu xóotalee analyse bi ci sa non participation au mm-hmm. euh, euh, à la conférence ou je sais pas à la déclaration de bu ñu ko xóotalee boo ko xóotalee peut-être ñu déglu la li nga wax mer na xëy na loolu c'est très relatif mais mën nañ ne également que xëy na Macky dafa doon bañ subjectivité ci ci question yi parce que jege na ko parce que ku la jege du la laaj. pas forcément non maanaam ma laaj baal ma non baal ma ko. laaj naa Macky Sall ñetti. waaw devant tous les laaj naa ko ñetti question bu njëkk bi affaire Sall bu njëkk bi. xam nga xam nga proximité xaaral may ma tuuti tamit may wax beneen affaire bi posé naa ay question Macky Sall devant la télé ñëpp xaaral ma eggali mhm. beneen affaire bi mhm. bu ñu taxawee ci ñeenti tuur yi kan la encore mhm. on a parlé de Matar Cissé Abdoulaye Daouda Diallo Abdoulaye Daouda Diallo Cheikh Omar Anne Cheikh Omar Anne Mansour Faye Mansour Faye ci sénégalais yi presque ñetti ñi ils sont très impopulaires ou inconnu. ñan la donc et président booy tànn xanaa kay di nga ne man sama dauphin Sénégalais yi moom la topp bi yuuxu di ko tàccu diw de nangam wala sax stratégiquement en terme d' électorat lii lay représente ou bien en terme de résultat de compétence parce que booy tudd Amadou Ba. xëy na da koy tudd ci wàllu électorat wala ci wàllu influence ak charisme. booy tudd Matar xëy na da koy tudd ci wàllu résultat ak compétence mais booy boo waxee waxul xëy na Cheikh Oumar Anne il fait partie xanaa kay Macky bu jël le risque di jël dauphin di jël dauphin Cheikh Oumar Anne parce que en terme de popularité ak en terme de critique yi nga xamante ne moom la sénégalais teg ci ndoddam chaque manifestation nit ñi tudd ko mm-hmm. boo jëlee effectivement daaw Daouda Diallo xëy na mën na def résultat mais amul xorom te c' est des éléments peut-être ay détails la mais c' est des éléments très importants. dans l' analyse ci analyse éléments yu am solo la. Mmh. c' à dire moom moo tax li mu wax. mooy li a wax dafay su dafay c'est-à-dire. ñi ñu souffrir c'est-à-dire en fait c'était même stratégique de sa part lay wax ni est-ce qu'il n'a pas été la bouche de Macky Sall est-ce qu'il n'a pas été mm-hmm. effectivement <laughs> la caisse de résonance. ok man man man ok yow avant ngay kii rek juste préciser bi <laughs> pour comme Charles Charles s'il te plaît ah. Euh, est euh, non non attends s'il te plaît pour euh, pour Mansour Faye quand même ça a été soulevé il a 3 pour cent quand même du budget ce n'est pas cent c'est cent un milliards virgule quatre donc non non mille milliards je suis désolé mille milliards c'est beaucoup quand même cent un virgule quatre milliards milliards la yore soit trois pour cent du budget parce que non non c'est important pour la précision Cheikh Yérim Cheikh Yérim xam nga dafa wax bu ma dafa wax ni du ay tour ne xaj na est-ce que jubóo na ñoom moom ce que. dama ne déedéet waxuma loolu de bëgg a leer dama bëgg a dindi parce dama cee xam dara teg lay waxal. Hmm? dama ci xam dara du ma wax lu ma xamut xëy na sama saal. non man da ngaa jum si ma. waaw waxuñu dama ne ñii lim tudd ñeent ñi mu tudd ak Amadou Ba boobu nga tudd. Hmm. ñoom ñëpp kenn am ci problème Macky Sall personne au contraire de confiance am lañ bokk na ci ñu gën a wóolu ñi mu tudd kaa ki nga tudd y compris Amadou Ba bi ngeen naan dafa problème ak moom damay la groupe boobu bokk na ci ñi Macky Sall gën a wóolu ci réew mi pourquoi tudd ko Yérim waaw non Yérim na ne pas Macky Sall man li Macky Sall nekk ci Macky Sall lay wax mm. la faral Yérim c'est Yérim mm. Yérim c'est journaliste qui dit c'est tout Mimi Touré nag dama man waxuma wax Mimi Touré ñu ma tudd tudd naa leen. Ah, non man li ma xam laa wax. Oh, non mais mu ne ma li ma xam laay wax parce que bëgguma génn jàkkaarloo. li mu wax bien introduit. dama ne j'ai dit que ñeent yi nga tudd y compris Amadou Ba ñooñu ñooñu ngañ tudd bokk nañ am na ñenn ñu bokk ci li si ba. am na ñooñu bëgg bu ko doon defaat tey bu ko doon defaat tey est-ce que dina yokk ci liste bi kenn. mais dañ bokk ci njëriñ bu ko laajoon même question bi. dafa tànn comme jubóo naa gars yi <laughs> est-ce que dana yokk ci liste boobu. waaw may ma may ma may je pense que sax je pense que. réponds à la question dans trois mois ah, dans trois mois Yérim ba changé leen noonu. non damaa amul ko ah, ah non Yérim ba même changé leen noonu. waaw damaa amul ko may ma la wax Yérim ba changé leen noonu. dama daan je dis bien je préviens les mots. dama ni. objection ni mu kàcc mu tudd. man kàcc mu tudd waaw. saag yi mu tudd. mais ci lan lañ bokk. la la mandat. ma non waxuma man waxuma ci man xam nga wax ci mandat am naa ko. ok d' accord. mais je ne parle pas de mandat je ne sais ma nga demee en matière de ma am waxuma ci mandat. en matière de mandat xaw ma ko Macky Sall teg ak la ma def xaw ma ci dara waxuma ci dara. alors ci gestion gouvernementale laa wax xam naa ñi Macky Sall wóolu ak ñi nga xam ne doy na te ñi ngeen waxtaan ak ñoom gisoo ñoom. mais la carte yooyu mu tudd. Hmm. y compris Amadou Ba. bokk na ci ñi ko gën a jege tey ci wàllu gouvernement. na nga nag dauphin ak ki remplacé Macky Sall loolu xaw ma ci dara. dëgg la donc Bouba je te rassure aw ma ak kenn honnêtement. xulóowu ma kenn jubóowu ma kenn. non man maa waxu politicien la. ma c'est normal bi dama am ma je comprends son interprète c'est normal. moom dafa nekk ci biir appareil bi te xam nga politicien moo demee noonu. xanaa dañuy wax xam nga seen biir selon seen seen i calcul mën nañ la wax lii tey ëllëg ñu wax la leneen. ma waxuma yow. waaw man man loolu ma. je veux dire. sama ma ne appareil bi ma nekk. man murid laa sama jëfi daa daa. appareil bi ma nekk appareil li ma gëm laa mais journaliste bi mais non a nga bokk. ay politiciens ñoo ci nekk. waaw hmm. politicien ku ne xam na ni affaire bi c'est compté comme météo rek. tu bref li ma bëgg a wax mooy man xulawuma kenn. Hmm. comme il le dit il a parfaitement raison gis nga euh, journaliste nit la bu nekk ci société bi am ay xarit am ñu muy gën a waxal am ñu mu gën a jegeel. am ñoo xam ne du gisante ñoom du wax ak ñoom àdduna noonu la tëdd <coughs> tu comprends donc ci régime Macky Sall am naa fa ay xarit ci opposition bi am naa fa ay xarit c'est normal mais loolu laa wax du influencer sama jugement parce que gëwuma loolu par contre manal boo ne ñi ñu tudd amuñu xorom mais am na Diouf bi ko Senghor di jox réew mi mais ñëpp dañoo moo fi gën a ñàkk xorom xam nga leen wax ñoom tey nag xam nga affaire succession xam nga lan joxe ñu ko élection bu affaire ku am xorom ah, du élection la ko joxe ak ku amul xorom xam nga problème la waaw ma xaaral ma xala rek c'est très différent xoola xoola par exemple xoolal par exemple le gars de euh, Dos Santos bi muy dem ki mu jox nguur gi mais ko kenn mosu ko calculer ci dara parce que c'est un boo xam ni il était dans son petit coin et cetera donc xam nga affaire boobu rapport de fidélité la. Mm-hmm. ku nekk ak ki la doy. du ay affaire kii am na xorom. kii amul xorom kii du loolu. mais en tout cas mais en tout cas mais en tout cas man sans commentaire. mais le choix des sénégalais aussi. non ce que je veux dire non xoolal du nekk président pendant douze ans di sànni nguur bi loolu amul kenn ku koy def ci àdduna. ay le fera jamais. voilà sànni góor gi. loolu alal mooy lan mooy choix des sénégalais pourquoi mu war a toog ci góor gi. sànni non mais c'est grave. non mais c'est grave. mais pourquoi mu war a sànni choix des sénégalais. mais ça veut dire. non Sénégal ñooy tànn mais na. non dafa na non Charles. yëriñ yëriñ kenn ci àdduna. non mais je parle non li muy wax. a wax comprendre li muy wax mooy. Sénégalais ñooy tànn mais moom ci niveau du parti. voilà moom ci boppam Charles. dégg lu baax li ma la wax dama ne la. ki Macky Sall tànn Sénégalais ñooy tànn. c'est ça mais Macky Sall du toog 12 ans sànni nguur gi. dina a def ay gën a am profil ci kéem mu jox ko jéem ko ngemb mu jël nguur gi. voilà loolu ah c'est juste. voilà ah loolu mooy yoon. mais naa la léegi liste bi ah. liste bi par rapport ak li Birima doon wax. Ah. parce que xam nga tamit wax tam ci biir plateau <laughs> parce que Birima nee na depuis boobu ak léegi affaire bi changé na. liste bi changé na wala leneen personne. man du xam nga dama la wax benn affaire man du ma wax benn affaire di ko commenter man li ma wax. Euh, mooy li nga xam ne moom laa jàpp. moom laa jàpp te am na fu ma ko teg. alors Cheikh Yérim nag commentaire ñëw di commentaire sur les commentaires loolu du ma ko def. Cheikh Yérim on avance Charles s'il vous plaît. exactement fa laa bëgg a jëm Idrissa Seck. le mutisme la bon noppeem gi pour yow c'est une bonne stratégie. Ah, wala ak est-ce que c'est une bonne stratégie. man de parce que évoqué nga tamit. ñu di waxtaan ak ñu waxtaan ak Macky Sall man man noppi seen stratégie ci politique xam nga lu tax. Hmm. parce que pendant que mu bàyyi terrain bi Sonko bi nga xam ni mooy troisième mu ngi koy occupé te c'est la hmm. nature à redire. Hmm. te Sénégalais yi nag kii wax seen i soxla. di dox seen i soxla. nekk opposant di métti lu leen métti. ëllëg bu ñuy tànn kooku la ñuy tànn. donc man jàpp ma ni loolu stratégie politique bu baax la. alors euh, nga ni mi ngi waxtaan tamit ak Macky Sall. encore une fois Der waxoon naa la ko. man li ma la wax. du ma ko commenté soo def moom face to face nga dem def. voilà li ma la wax du ma ko commenté. tu vois ce que je dis. Ah, mais daal mais daal mais tu peux poser des questions. moi je man mii animé. waaw yow waroo poser des questions. Ah, waaw yow maa distribué parole mooy. waaw waaw alors.